l'entraîneur doomu Jordan Mbour eh la face de Mbour ñu doomu Jordan waaw waaw doomu Jordan Mbour ndeysaan sax mu ne sama gaay waaw waaw doomu Jordan Mbour nee naa la gaay bàyyiwuñ ko xel moom doomu Jordan bu waaw quatre sorties mu mujjee rek poids léger ndeysaan yi yëpp moo ko finalu waaw jël trois yi ñàkk benn bi moom doomu Jordan Mbour waaw waaw ndeysaan doomu Jordan na ngi noonu waaw waaw borom bu General TV अगर मेरा